man nuyoo ñi fi nekk ñëpp ci kilifa muy délégué de quartier di imam di conseil municipal di adjoint di présidente mouvement nouvelle vision femme nouvelle vision jeune di mouvement xale yëpp nag bàyyiwuma kenn ak responsable politique yi socialiste yi ñëpp rek ak alliés yi ñu àndaloon yëpp ci coalition bi ñoom ñëpp dama leen di nuyu di leen gërëm donc vous me permettrez en quelques mots au nom de la démocratie et de la volonté divine, acceptant aussi les résultats des urnes, de féliciter le parti PASTEF qui a remporté largement les élections. C'est ça la démocratie, c'est ça le fair play. Remercier aussi nos partenaires, nos alliés et tout le monde. Vu que le PASTEF a largement gagné, et c'est normal, on ne peut pas envoyer un soldat en guerre lui donner un fusil et pas les munitions. J'ai compris que les Sénégalais lui ont transmis des munitions. Donc, que la guerre soit belle et que la victoire nous revienne de manière imminente. J'ajouterai que le Sénégal est fatigué. On a assez de difficultés et je pense que le régime maintenant à toutes les forces que requiert sa détermination et sa volonté. Donc nous attendons des résultats et dans les meilleurs de Et que le tout repose sur la démocratie et sur la paix sociale je vous remercie. ci kàddu yu gàtt may wax ni yàlla defal nañu élection yu am jàmm ak salaam élection yooyu ci turu démocratie ak turu li yàlla namm te def ko te mënuñ ci dara yàlla def na li nga xam ni gëral na ko maanaam Pastef gagné na élection yi largement. may profité ci occasion boobu parce que démocrate la di nangul yàlla dogal te nangu ni Pastef gagné ne élection yi largement di ci félicité waa Pastef commencé ko président Ousmane Sonko ak premier président de la République di félicité waa Pastef Médina tamit ndaxte pratiquement boo seetee campagne nañ ci jàmm te yàlla may na leen ndam te vraiment lépp a ngi am ci jàmm ak salaam loolu mooy àdduna loolu mooy politique yàlla nag dafa def ni nit ki boo ko yebalee guerre jox ko fetal dañu jàpp ni fetel bi warul bañ am bal foog nga jox koy bal pour mu xeexee sinon di nga ko yebal bu amul bal du dellu si sénégalais yi nag joxoon nañ ko fetel bi delloo nañ ko bal yi mu war a xeexee ñun nag bu ñu dee ay sénégalais bëgg réew mi dañ leen di ñaanal yàlla fetel bi ñu leen jox ak bal yi yàlla na indi ndam te ndam loolu mooy jàmm senegal mooy ñi ñi fii fanaan di fi yeewoo te dëkk fi li ñu séentu ci nguur yëpp yàlla may ñu ko may félicité Pastef Médina bu baax a baax a baax parce que loolu mooy démocratie yàlla bu la mayee tey mën na la xañ suba kon maa ngi gërëm képp koo xam ne rek bokkoon nga ci élection yi def nga ci ñaan ba yàlla dogal li muy dogal sama mbokk laa yéene loolu dañuy woy bur yàlla dogal dogalam ya kon bu dogee dogalam ya dañ koy nangu jële ngeen jëf